asalaamaaleykum samay mbokk patriote Pastef Medina maa leen di nuyu di leen ziar euh, di leen massawu di leen ndokkeel ci taxawaay yi waaye itam di leen massawu wu ndax dernièrement suñu frère ak sœur yi nga xam ni jaay nañ leen doole euh, yóbbu leen téye leen ci kaso bi ci loo xamante ni tegwul fenn ndax guleet ci réew mi ñu arrêté nit kuy def porta à porte jël ko di yóbbu ko instruction yóbbu ko kaso donc ay boobu léegi bi mu amee itam ñu ngi taxaw euh, bàyyiwuñ leen benn yoon ci li nga xam ni ñoo ngi koy jéem di leen taxaw ci fañu ne donc di ko ànd ak seeni njaboot ñaan yàlla rek yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu mën a génn dellu ci seen i njaboot ak seen activité donc di kontaan ci taxawaayu ñëpp bu loolu weesoo nag gis nañ li nga xam ni mooy euh, décision bi conseil constitutionnel génne wax définitivement ñi nga xam ni ñoo di candidat ci élection présidentielle ñun ñëpp ñu amoon yaakaar ki ni su fekkee ni droit rek mooy dox ci réew mi président Ousmane dina nekk candidat euh, waaye gis nañ ni <laughs> ba ci mujjantal gi ñenn ñi dinañ ne amuñu ci mbetteel ndax euh, réew mi droit yaakaar naa ba fi géejee yàgg na euh, te buñ ko dee wax itam am nañ ci fuñ ko mën teg ndax ku xool décision bi conseil constitutionnel génne nee na naam la ñu def Ousmane Sonko xaañ ko fiche parrainage xañ ko euh, kii attestation euh, caisse de dépôt consignation nee nañ loolu faute boobu kenn mënu ko ko teg mu conseil bi nangu na loolu keroog ci janvier. dañ ko àtte ci dossier diffamation bi mook Mame Mbaye Niang àtte boobu confirmer li nga xam ne moo di six mois de sursis yi ba tax na euh, ñàkk na éligibilité ñàkk waxu ni da ko ñàkk rek ci élection yi ñu jëm nii mu di présidentielle mais daf ko ñàkk ci diiru juróomi at loolu ndax réew mu ñuy mu ñu naan am na droit am na démocratie ab candidat ab leaderu partie ñu mën ko xañ lu toll ci juróomi at pour mu mën a bokk ci ay élection waxuñu présidentielle législative ak locale ak lu mu mën a doon xañ nañ ko ko donc conseil constitutionnel ci décision boobu la sukkandiku kon la cour suprême defoon keroog ca 4 janvier ba lu ñu tay la lu ñu xamoon la ndax dañoo bàyyi ay dossier yu fa nekk ay at ñëw programmer dossier Ousmane Sonko ndax lii lañ ci doon jublu ndax fa la conseil constitutionnel sukkandiku ne Ousmane Sonko mënatul nekk électeur éligible ndax mënatul nekk électeur muy un précédent bu dangereux ci réew mi waaye loolu euh, xëy na dinañ ci ñëwaat ci jamono waaye li am rek mooy lii nga xam ni moo génn moo di décision bi ñu sant yàlla comme ni ma ko yàgg waxee président Ousmane Sonko lu mënti am dafay sant donc dañuy sant yàlla euh, te xam ni nag euh, kii nga xam ni mooy Bassirou Diomaye Faye bokk na ci ñi nga xam ni moom lañu ñu validé pour mu nekk candidat léegi nag message bi ñun ñëpp xam nañ ko nañu ànd déglu président Ousmane Sonko ndax boobu ba léegi li am ci stratégie jëm ci candidature ak yeneen candidature moom ci jëmmi boppam moo ko xalaat ànd ci ak nit ñi di leen orienté di leen joxoñ fi ñu war a jaar pour dem fa donc nañu ànd déglu ko di xaar fan la ñuy joxoñ waaye lu ma ci mënti doon rek nañu xam ni fi mu toll nii benn taxawaay dong dong dong dong dong lañu am mooy lan fexe ba Macky Sall ku takk ci moom ku jege ci moom ku mësa laale ci moom te nekk candidat élection yi nga bañ ko gañe loolu nag mu ngi tàmbalee ci ñu jëli suñu ay carte électeur ndax lu ñu mën a dimbalee président Ousmane Sonko mooy élection jot ñu mën a dem voté ji te lii nii ñu ko teg moo baamuwaat ko juróomi at yoo xamante ni du mën a nekk électeur du mën a bokk ci élection moo xam présidentielle la moo xam locale la moo xam législative ak bu mu mën a doon du ci mën a bokk loolu nag su fekkee ni li mu xeex ci démocratie xeexal ko askanu Sénégal xeexal ko réewam xeexal ko partem su fekkee ni loolu noonu mu ñu defal tey jii lenn dong lañ ko mën a sante mooy ñu bañ ko abandonné te mooy lan jëli suñu ay carte élection bu jotee ñu dem voté ji donc loolu mooy message bi nañu jëli suñu carte sensibiliser suñu mbokk yi suñu xarit suñu dëkkandoo yi suñu collègue yi dimbali leen organiser leen ñu dem jëli seen carte électeur ba incha allah ki nga xam ni moom lay joxoñ ñu fexe ba kooku gañe am nañ ko mën nañ ko te lu mën a nekk la fi mu toll nii amul tuñu toogaay amul tuñu lu ñuy discuter amul tuñu lu ñuy werante benn mission képp kot dong la ñu am mooy fexe ba ki président Ousmane Sonko di joxoñ ñu ànd ci ak moom ba kooku am ndam ndax ndamu kooku mooy doon suñu ndam ñun mooy doon ndamu président Ousmane Sonko donc di wax ne ñëpp déglu bañ a gaawantu bañ a am benn taxawaay boo xam te ni ëllëg mën na jafeel yu bari mbooloo la ñu nekk te mbooloo mi am na ku ko jiite te stratégie bi ñu doxal boobu ba léegi moom moo ko xalaat di ko saytu di ko tëral di ko topp benn par benn ba keroog mu agsi fii donc yoon lañu ñu di ko déglu te xaar joxoñam joxoñam nag ñu def ko suñu farata def ko suñu yitte te bañ a toog xaar dañu jëli carte électeur yi élection yi ñu dëgmal Macky Sall ku mu tànn ku jege ci moom ku bokk ci moom ku mës a bokk ci moom ak ku mu mën a doon ñu fexe ba doo gañe élection yi fexe ba ki nga xam ne moom la président Ousmane Sonko di joxoñ kooku gañe élection yi donc loolu mooy li nga xam ne fi mu toll nii moo teew di ñaan ñëpp ñu ànd ak dal ba ñu dugg ci werante ba ñu dugg ci débat polémique kii la war doon warul doon kii wala kii ki nga xam ne moo tëral stratégie bi boobu ba léegi nañ ko déglu te xam ni li gën ci projet bi lay def li gën ci Sénégal gis-gisu seen gi soppi Sénégal incha allah loolu lay dox lay def ndax looloo ko tax di sol donc lii nag moo nekkoon message bi nga xam ni dama ne dinaa ko partagé pour que ñun ñëpp ñu takk suñu ndigg waaj te déglu président son ko te xam ni incha allah ndam mën nañ ko am te incha allah dinañ ko am donc loolu moo nekkoon kàddu yi ngeen baal ma